Abdullahi ñëw na fii ci papam ba tàyyi yu baax yi muy def di ko jëf di ko taxaw ci nit ñi lépp fii lañuy fekk te lépp yàlla tax lépp mbaax a tax lépp xam ni Cees sa dëkk te bala ngaa defar dëkku jàmbur wala ngay génn di lijjanti jàmbur yi lijjantil say mbokk ak say dëkkandoo ba noppi kon lii mu def ci mbaax lii mu def ci yiw du tay ji lako fi def ci keur mamam gi du tay ji tam lako def ci yeneeni keur mamam kon ñongi koy ñaanal yalla bu baaxa baaxa baaxa baax president confiance bi mu am ci mom ak lutef gi mu am ci mom ak jappale gi nga xamni bëgg na mu jappale ko yalla nako yalla gëna taxaw yalla doli ko sutura yalla doli ko jamm jëf ju baax dal mam alaaji dan na wax ni seen mam jëf ju baax ak jëf ju bon daal benn la ñu ne ko lu tax mu ne taq ndeer la bu topp ci sa ginnaaw bu jant bi so rek muy dugg ci sa biir jëmm kon mënul def lu baax di am leneen lu dul lu baax même ñi nga xam ni sax defuñu lu baax li ñu yaakaar ci yàlla mooy yàlla defal leen mbaax ndax yàlla mbaax rek la am kon rawatina bu defee lu baax lii fa tabaarakallaahu ñu ngi koy sant bu baax waaye di ñaaxaat bu baax askan wi yëpp ci li nga xam ni moo tàbbi ci sunu biir mbas la nattu la balaa la musiba la buñ ko jiiñ kenn yàlla moo ko teg ci sunu kaw leneen li tam léeg nga dégg nit ñi ci gàtt xel gu nuy gàtt xel ñii naan eh, borom ñaari tur yi la ñii naan moykatu yàlla yi la ñii naan lii la déedéet kenn ku nekk jàppal ni say bàkkaar moo tax yàlla merenu ku nekk rek jàppal ni say bàkkaar te ku natt sa bopp xool rek dinga xam ni def nga lu jar àdduna tukki ku nekk nag bu xoolee ci boppam jiggalu yàlla ci boppam ak daytoo na mu def ci ay bàkkaar yàlla mën naa xool ci loolu day baal ñëpp teggi mbas mi teggi balaa bi ñi feebar yal na yàlla wéral leen ñi amagul yàlla mënu am mukk ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, président Abdoulaye Dieye Serigne Muniru mu ngi lay sant famille Ndiéguène ñu ngi lay sant dañu jógoon tey ci ndigalu président Abdoulaye Dieye Eh, don yobbu ay eh, ndimbal ci daara yi bon kérok yalla defon nañu dem Thiénaba dem Tivaouane tay aussi mu yabalat ñu ñu and ak eh, seigne tierno fay imam Omar Dem ak responsable des jeunes Massaer pour ñu dem ci yenn daara yi nek ci bi Thiès ak yenn këru kilifa diine yi pour mu yóbbu fa ndimbalam ndax euh, jamono ji gis nañ ni euh, yàlla dafa wàccee benn euh, épidémie bu ñuy wax coronavirus boo xam ne dafa lëmbe àdduna bi te ñëpp xam nañ ni bokk na ci li koy saafara ci li ñu digle mooy nit ñi toog seen kër rawatina daara yi ñu toog seen kër taalibe yi toog seen biir daara yi toog fa bañ a génn ndax xamuñu fuñ koy foree ci biir euh, dëkk bi euh, donc euh, mu ne woon te ñooñu bu ñu tëjoo demuñi di sàkku ndimbal di yalwaani comme niñ ko daan defee mu ne ñooñu war nañ leen fekk fa ñu nekk dimbali leen ndax ñu mën a jëfee ndigal li nga xamee ni que président moo ko digle.